ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen nuyu di leen ziar di gërëm maire bi nga xam moo ñu dalal maire Daouda Tine di rafetlu aussi disponibilité am ak ouverture am comme ni ma ko waxee sànq ci tubaab mission bi lenn rek la mooy may ñaari dëkk muy Gaddaxaay ak Ndoukoumane ay lampe à économie d'énergie bëgg nañ yi bu nekk jot ci bëgg nañ jumaay jot ci bugg nañ jàkkee jot ci li tax ñu def loolu. dafa bokk ci gis-gisu président muy maanaam yaxanal ci pàcc yëpp yaxanal ci wàllu administration yaxanal ci wàllu téléphone état bi yaxanal ci wàllu train de vie de l' état yaxanal ci ay pàcc yu bari leneen li aussi tax ñu def ko ministre de l' énergie et du développement des énergies renouvelables dafa nekk doomu Thiès ñëwoon fi waxtaan nag waa dëkk yi am ay digge yu mu fi defoon digge yooyu mu yëggee ñu ko comme ñun ay ndawal buur lañ. mënuñ woon def lu dul fexe lim ñu sant ñu def ko donc loolu moo waral tey ñu ñëw ànd ak suñuy agent suñuy direction ànd ak aussi ministère bi bi tey di conseil technique bu ministre bi teewal fi ministre bi ànd ak maire bi ànd ak autorité locale yi ànd ak responsable locaux yëpp fexe ba euh, kàddu gi nga xam ne ministre moom la joxe woon ñu fexe jëfe ko au grand bénéfice des populations. li daa ñaari village yi mooy Thiès dafa nekk ci xolu président. moo tax bi président yegsee mu def fi ay piste de production yu bari moo tax président yegsee mu fexe ba dëkk yi am courant dëkk yi amuñu woon courant chef de village bi la wax na ko dund na ba doon màgg màgget macha allah mu ngi doo gis courant te Macky Sall moo ko waral. moo tax bourse de sécurité familiale yi na fi moo tax euh, panneau solaire yi na fi moo tax yeneen ak yeneen na fi moo tax mu indi fi courant moo tax mu may leen lamp yi ci xool bu sedd guy. yeneen ñi jot nañ jot loo gis rek dafa am ndorteel juróom-benn village la ñu électrifié dinañ électrifié yeneen village yi ni ko ministre bi waxee maire bi ñaari village lañ may ay làmp dinañ may yeneen village yi làmp yi 2000 lamp ñaari junne làmp lañu indi ñaari dëkk yi dëkk bu nekk jox nañ la 600 lamp li des nañ ko jox responsable yi soit ñu jox ko Sénélec bi mu xool ak ministre bi naka lañ koy. distribuer. mais commune bu mel ni Touba Toul presque une vingtaine de villages yu li li li am solo mooy loolu amul foon ñu doog a tàmbali tali yi amuñu foon tàmbali nañu bourse de sécurité familiale yi amu fi woon tàmbali na euh, panneaux solaires yi amuñ fi woon tàmbali na électrification village yi amu fi woon tàmbali na donc mun nañ ne guleet ba président ñëwee la Touba Toul dund ah monsieur le maire. Casa Sane yeeg yeneen. donc loo gis rek day am ndorteel dañuy tàmbali suñu yéene suñu bëgg-bëgg mooy fexe ba dëkk yëpp ñu électrifier leen fexe ba làmp yi dugg ci gox yëpp fexe ba économie d'énergie doon fi maanaam réalité. wax léegi ci euh, tubaab rek moom la wax léegi ci wolof euh, dama xam nga dama wax ne les mais euh, mairie à ay doléance seen doléance du jeex jamais parce que population yi aussi moo demee noonu boo jëlee population doléance day bëri ci ñoom te doléance yëpp ci yow lañ koy wékk surtout lu jëm ci mbiru courant bi nga xam ne moom la population yooyu bëgg lépp population yooyu rek la ñu bëgg ba foo dem fu nekk lu ñu lay laaj mooy électricité bon certes sama commune réy na parce que quatre-vingt-sept villages la te aujourd'hui on a électrifié vingt-deux villages euh, kon des na lu bëri ci électrification rurale mais teewul aussi euh, ministre bi ak le président bi ñuy def un effort parce que avant mu fiy ñëw euh, fukki village rek ñoo la ñu électrifié ak benn mais léegi ñu ngi ñaar fukki village ak ñaar kon jéegu bu rëy am na mais nag duñu continuer aussi di taalal suñu loxo pour yéen dëkk xam ne électrifié leen te demande bi aussi à chaque fois ñu ñu koy wax moo tax ma ne de toute façon que nun en tant que maire ñu ngi taalal suñu loxo certes électrifié nañu 22 villages 6 villages électrifié nañu bu yàggul 8 villages da ngi ci projet bi ñu ñaanal encore 8 villages yooyu ñu ko démarré gën a gaawee bu ko defee aussi ñu dagaat suñu loxo ne ay dëkk yu mag la ndox mi moom euh, euh, doléance wax naa ne sama commune doléance zéro la en matière do parce que village yëpp am euh, robinet tout les villages de ma commune ñëpp am robinet xëy nag ndox mi des fois mu am ay gàllankoor parce que des fois que euh, forage yi ñuy dem ba du ñu attan population yi ndax population moo yokku euh, ba tax euh, des fois nga xëy ba nga sa robinet du am ndox ndax ndox mi moo du doy pour mën a servir population yëpp boo demee lu mel ni Touba bon ñaari forage am na fa mais teewul ba tey am ñoo xam ne dinañ dox deux jours du ñu am ndox. parce que ndox mi bu ñëwee ci château bi avant mu yëg yéen dëkk yi ndox mi dina jeex moo tax bu tey itam problème ndox am nañu ko teewul aussi rootu ci ñu ci teen mais nag nañ jàpp ne euh, forage yi ñoo doyagul ba mën a indi ndox mi euh, ci population ndox moo xam ne bu doy lay doon. jaggat gi ma joxe am am na fa am na ñu ñaari forage yu fa dugg forage su Kelle Mbaye sax dugg na fa forage Toubatu dugg na fa mais forage yi ñoo amul ndox moo xam ne dina mën a servir population yëpp. mel wax na ko soxna Fatou Seye wax na ko ñun yi ndawal buur lañ man maa jiite agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie agence bi li ko tax a jóg mooy fexe yaxanal ni ñuy jëfandikoo wàllu énergie ci yaatal ak ci tënk ni ñuy jëfandikoo wàllu électricité te ka dañ ko yaxanale président def ci ay jéego yu bari ci ay gox ak ay pàcc yu bari ci wàllu téléphone ci wàllu logement ci wàllu administration ak yeneen ak yeneen Thierno Alassane Sall doon suñu mag gannaaw ba liggéey weesu nekk suñu xarit mu ay mbébétam buñ àggee ci ñun lu ñuy jëfe ci lu gaaw la ñu ne ñëw na fii am na lu ngeen ko ñaan jox na leen kàddoom ci laa ko ne loolu lañu war a def ñu gënee gaaw mu ne ma waaw ñu waxtaan mu wax ma situation bi ni mu demee ma woo bi tey woo samay service technique ñu réunion woo maire bi lañ décidé waxtaan ak soxna Fatou Seye jël décidé amal mission donc Thierno yéen a ko moo ko fi teg pour lu jëmale askan wi kanam bu conscient ci loolu ndax bi ma déggee ne moo fi andi tali bi xaw ma ko woon yéen a ko wax indi fi électricité ba teg ci wër may leen ay laf je pense que Thierno Sall wàccoo na ak askanu Thiès donc yéen dañuy ñaan ngeen wéy di ko jàppale ndax ñoom aussi loolu la ñu soxla di nuyu docteur Augustin Tine bu baax responsable politique aussi. di ministre de la république nekk ci département bi ànd ak Thierno ñuy def liggéey bu rafet donc mission bi loolu moo ko waral dafa bokk ci suñu liggéey ci la ñu décidé muy Ndoukoumane ak Gaddaxaay ci ni ñu ko ministre bi waxee ci li mu leen ko diggee woon waxtaan ci ak maire bu baax ci lañ décidé nañ ñëw indi leen làmp yi donc dox dëkk bu ci nekk am na lu gën ngaa réew MC bi wax na ko léegi 600 làmp mooy juróom-benni téeméeru làmp dëkk bu nekk je pense que suñ ko tegee ci yoon te gëm naa ne di ngeen ko teg ci yoon parce que commission dina am ngeen boole ñëpp waaw loolu moom dama ci dugg seen prérogative la maire bi jigéenam chef de village bi voilà imam bi yeneen ko nam gën a rafete mais yéen ku ci jàpp ngeen boole ko ci bañ am bedd gëm naa ne di ko jaaral ci yoon te mun naa ne Sénégal ba mu daj fii la ñu njëkke am waruñ fi am déception moom tey bu ci nekk maire wax na ko sànq bu ñu doon xayma ci ay koppar xaasu bari la parce que ay lampe à économie d'énergie lampe yoo xam du jël courant la lampe yoo xam boo ko taalee du tàgg lampe yoo xam dafay gudd fan ak lampe yoo xam li muy rëy am mooy gën a rafet te mooy gën a yàgg fuuf donc ci juróomi pàcc lampe yi moo gën téeméeri yoon lampe yi nga xam ne mooy ñu faral di ñun nag li ñu leen mun a yokkee ma ngeen bàyyi xel ci yaxanal yaxanal lu diine digle mooy fexe ba bu ngeen nekkatu ci néeg yi ngeen mën a taal làmp yi di bañ di ubbi fri fri frigidaire yi ubbi yu bari teg ci gaz buy tàkk ngeen bañ ko teg ci wetu frigo chargeur yi nga xam ne chargeur bu bon portable ngeen ko téléphone yi nga xam ne tàkk euh, euh, euh, télé yi nga xam ne tàkkul aussi ngeen fay leen loolu daal mooy xalaat yi nga xam ne bëggoon naa la ko àggee di leen marqué sama disponibilité di sant de la république bu baax comme ni ngeen ko waxee ni ko chef de village bu waxee fii la juddoo fii la màggee yàlla na ko yàlla mayaat gudd fan ba at yi mu am tey macha allah di yàgg di jooy courant di jooy courant di di jooy tali comme ni ko maire bu waxee ba président ñoo indi fi piste de production bu yemoon foofu rek day neex wala ba tëggu indi fi électricité wala ba tëggu yëkkati ay lamp jox leen service sur le gâteau donc président ak couverture maladie universelle comme ni ko soxna Fatou Seye waxee donc président wàccoon ak waa Thiès waa Thiès yéen a dese wàccoo ak président je pense que élection yi nekk maire moom balaa la ci loxo da ngeen ci jàpp baax ba li mu bëggaat ngeen may ko ko soobee yàlla. donc ñu leen di sant di leen gërëm di nuyu maire di gërëm ministre Thierno Alassane Sall di gërëm président de la république di sàkku ci imam bi mu ñaanal réew mi ñaanal njiitu réew mi ñaanal le ministre de la république Thierno Alassane di gërëm ñi nga xam ne ñun ñoo ànd di gërëm aussi ñi nga xam ne ñoo fekk si di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di gërëm taskatu xabaar yi. dëng ci kàddu gi ci ñun la lu ci jaar yoon dañ ko sant yàlla ngeen di gërëm leen sant leen baal wax wasalaam